mu di ñiy liggéey ci anuk mbalit mi tënku ci kër syndicat sàkku na niki tey ci suba nguurug Sénégal mu fay agent yi nga xam ñoo doon liggéey ci ndem si yàlla ama donte sax ñoom liggéeykat yooyu rafet nañ bu baax a baax grève bi nga xam ni génn nañ ci ak gouvernement ki taxawaay gëm ci am bali ëpp ci seenu revendication ñu daal di koy saafara nu mu gën a gaawee dañ ci ànd ak leeralu Zahra Aydara Abdoulaye Diagne gën a ñogal nekkinu liggéeykat yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllum mbalit mi gannaaw bi ñu amee ñaari at ci wàllum négociation gis nañ ni lu bëre ci li ñu doon laaj daal dinañ leen ko jox. dañoo toog fukki at amuñu convention collective yàlla def na signé nañ convention collective bi dañoo toog fukki at amuñu woon ay bulletin de salaire depuis léegi trois mois bulletin de salaire yi commencé na génn ba ñu am un bulletin consensuel toog nañ fi ñeenti at amuñu prise en charge médicale suñu feebaree duñu faju tey yàlla suturaal nañu Amener une mutuelle de santé des travailleurs du nettoyement. gannaaw buñu ñu satisfaire lu beuri ci sen revendication téwul front unitaire syndicat Nettoyement bi am leneen luñuy xaar ci sen liggéey. ci walu attente yi muy ci walu prime de logement yi nga xamni demandé parce que gis nañ ni état du Sénégal mi ngi am ay logements sociaux yu muy def. te logements sociaux yooyu kenn gënuñu ko yelloo ñun travailleurs parce que nous sommes au nombre de 1532 agents. mission des moyens. Sénégal du émerger ci salté front unitaire bi di laaj ñu delloowaat budget bi ci fukki milliards ak ñett ndax liggéeykat yi gën ci mën a gis seen bopp te it ex agent yi doon liggéey ci ama ñu daal di leen fay seeni i droit budget bi 10 milliards la mais travailleurs yi gisuñu seen bopp ci 10 milliards yi ñoom dañuy demandé chaque jour ñu gën a yokk seen i payoor yokk budget bi pour que liggéey bi war a mën a jaar ci yoon travailleurs yi dañu demandé demandé unitaire bi pour que droit ama Sénégal yi ñu fay ko. nam sax bi ñu satisfaire lu toll ci fukki poñ ak ñett ci seen revendication front unitaire syndicat nettoiement bi di wax ni prime de risque bi tam lu leen soxal la. Zahra beneenug bërëb beneenug saako teef ndaw yi nekk ca jokkul ñoom dañoo bëgg ñu dugal leen ci liggéey yi nga xam ne ni moom mooy am ci centrale ban tabax ci Cap des Biches. ne ñu benn digga la woon boo xam ni gouvernement gi defoon nañ leen ko gannaaw ñu tabax boobu lee central boobu léegi France daal amul benn ndaw boo xam ne yaa ngi yeewoo jokkul ñu daal di lay jël ci boobu boobule centrale lii la ñuy naqar dañuy teewlu kon kenn ci ñoom di euh, du sekk moo wax ci kàddu ndaw jokkal yi. moo suy xonq yi li ko waral mooy dañoo am lu ñu metti parce que ñoom avant ñu démarrer travaux yi dañoo ñëw si population wax ak ñoom def ay promesses yoo xam ne respecté wuñu ci dara. travaux yi démarré depuis 6 mois employé ngi liggéey. amul benn koo xam ne nii ku dëkk ci. ci quartier yi nga xam ne ni moo gën a jege muy jokkul jokkul waaga jokkul njaay jokkul njuréen boo xam ne ni mu fiy liggéey te ñoom ñoom waxoon seen kàddu wax ne fii la ñuy jële ay nit promettre ñu ne dinañu defar benn école dinañ def microculture bi promettre ne dinañ defar benn poste de santé promettre ne ne euh, suñu cimetière yi miir dafa daan ñu promettre ne dinañ ko defar loolu yëpp respecté ñu ko kon nag bu ñu demee bay def fi ab implanté ab usine fii te loi bi may ñu ne lépp lu bu ñu implanté si dëkk ak dëkk ba <coughs> jeunesse dañ am droit liguez you loolu la loi mais pourquoi ñu jëlee ouvrier de Dakar ou de partout au Sénégal ñun waa nitu dëkk bi mënuñu am liggéey fii pour mënu liggéey en lañ jox pour ne nguur gi ko ko di Nous ay ñu ne de yemuñ ca ndax sàkk nan buñ leen fa yóbboo ñu tegal leen ci benn enveloppe ci lu tollu juróom-ñeent fukk ak ñett ci ay millions su ko defee lépp loo xam ni kuréel gi mbébét na ko mu mën koo saafara nu mu gën a gaawee jëmale ci yooyu les mécaniciens Aliou Sow kenn ci mécaniciens yooyu la ñuy teewlu. jafe-jafe yi ouvrier yi di am yëpp ñoom ñoo leen ko teg ci président de la république mu jox ñu terrain bi nekk fii pour waa ouvrier yi nekk pompier mais terrain bi nekk boo maraîchère ñu jékki-jékki xëy am ku koy miiree ñu laaj bi dafa am ay gàllankoor bi soxla soxlaa pompier pour def fa cité émergent bi dañu ñëw nañu cité émergent bi tardé na un mois ñu génn génn bu rafet ñun dañuy liggéey mais li ñu wax nii ci ku bëgg a feebar faju mais amuñ ci secteur informel bi mënoo nekk sa réew ngay laaj place su liggéeyukaay rek mënoo ko am ñu ne dañuy créer ay emploi balaa nga créer emploi ñun ay emploi lañ ba pare mais fi ñu exercer suñuy métier la ñuy laaj état nañu jox suñu site jël 93 millions yi def ko fi ay garage moderne ñu dugg fi liggéey ñun loolu la ñu wax fi ñu nekk ni insécurité la mairie buus nañ ñu ba ñu fees kon président moom moo war a jël ay mesures xam ni dige bor la. dañuy wutali max Mahmouda Chérif ba leen fàttali mooy muy dëkk dëkkaan boo xam ne nga woon ca diwaanu Sigicoor fan yee ay coow amoon ca ci tabaxu génn ak jumaa ba am koo xam ni te ca jàmmaarloo ñàkkoon na ca bakkanam am ñee ñu ca am gaañu gaañu. ña yeewoo ña dëkkee Mahmouda Chérif te yeewoo fii ci Ndakaaru daal dinañ tënku ci benn kuréel di sàkku kon coow li bañ fayam ndax ñu teg daan ñi nga xam ni ñoo faat bakkan boobee teg ci nag kon teg ci ay daan ci it eh, loo xam ne ay ndàmpaay lay doon bu ko defee ñëpp ñoo xam ne amañ cay gaañu gaañu ñu mën caa fajo ba weex Ndeye Khady Diouf moo ñu teewaloon seen rajo ak taskatu xibaar yi ñagas-ñagas yi dox ci digënté ñaari communauté yi di Mahmouda Chérif ak it nek nekk ci diwan bu Sigicoor mi ngi doxon ñaar fukki at ci ginnaw ñagas-ñagas yoyé di gën di tar liko sabab di ci njeextalu wër wi ñu wésu jot nañ fa rek yaq ab jàkka jo xamanteni ni dañu ko doon tabax afele ci Mahmouda Chérif wa Mahmouda dañ doon dem di jullee fi nga xamné mom moy mooy euh, jàkk euh, ben problème am suñuy papa ak suñuy yenn mam yi ne vraiment mënatuñu bokk fu ñuy jullee ak ñee chef de village bi ne kaay leen naa leen jox fu ngeen fu ngeen di tabaxee seen seen seen jumaa bi collectif bi ëmb askan wa bawoo foofee ca Mahmouda Chérif ñi ngi weddi kàddu yi nga xamante ne ni ñoom ñooy wax ne dañoo ànd ak rebelle yu MFDC ah, ci seen i jëf ku ñuy jiñ ñi dina ay intégriste lañu loolu du dëgg du du benn dëgg collectif bi nag euh, di sàkku rek ci responsabilité gu mat sëkk ngir ñu saafara jafe-jafe yi nga xamante ne euh, bakkenuk doomu aadama euh, jot na caaroot lii lu ñuy joytu buñ ko bàyyee nii nëpp nëppal day dem ba lu gën a garaaw am te bu boobaa ñun dañuy dégager suñu responsable dañuy wax ni vraiment wax nañu nguur gi li am effectivement ressortissant yu communauté bu Mahmouda Chérif gis ni saa su nekk dañ leen di bàyyi gannaaw tax ñuy sàkku ci kilifay réew mi ñu daal di rek fësal yoon ci faatuk seen ñooñ googule waaye itam ñu fexe ba ñu jot fukk ak juróom benn million wu ndàmpaay yoo xamante ne ni yoon digle woon na ko ci atte gu doxoon seen diggante ak it waa Kariyaay loolee ci atum 1997. Ndeye Khady Diouf fi li ñu yem ak yéen ci wàllu kër xibaar laataa ñuy tàqalikoo nag di tàggoo dañ leen di dëgtal li ci yéen i kaay El Hadj Ahmed Aïdara lañ ci ànd. day journaliste lañ doon waxtaanee démb ca pale ba day le populaire ne cérémonie de remise du rapport la dee sénéra la ñu liggéeyoon ca at ba waaw moom lañ doon jébbal la république waaye Macky Sall day dal na ca kaw ya ma la chargé na leen de parce président day waaw nee na jël nag maanaam kon ay dossiers yoo xam ne dañoo jàpp ne kon ay secret défense la di ko wane loolee du yoon waaw waaw Macky Sall yemu ca parce que ne ci ay tojaange yoo xam ne kon a yàqal na waaw yéene kaay gi ne lu jëm nag ci wàllum journaliste kon bañ a duggati kaso waaw Macky Sall day 2012 d'accord oon na ca waaye 2015 gi daa mel ni lu daw deuxième ca parce que président de la république daal la mu xam ne mooy xam nga nag mënoo def kon am giraawaali ba di koy na de waaye nag waaye nag attention le soleil yéene kaay ne Macky Sall daal moom président daal dinay woote nag journaliste yi lée ngir ñu gën a dawal nag wàllum xees responsabilité dim kilifteef ci li nga kon wan askan wi président Macky Sall ci enquête waaw na ci ñu ay professionnel ci journaliste waaw jël métier mi nga kon métier bu la jël ko en otage di koy Babacar Touré Sénégal gis nga code de la presse bi waaw buñ ko rek jafe-jafe ci professionnalisme gi ko waaw libération ne président Macky Sall ñu mu de waaw def kon wax sa xalaat gi tamit yi nga kon nimiku ci internet bi sax ay kayit yoo xam ne war a génn ci mbedd mi ay document secret muy feeñ kon ci journaliste yi ma ne la buur wax na demb dee doomu buur tam wax na démb di Karim Wade mi lay laasé e Karim Wade day waaw dalal na na kon démb daal ay militant ma nga commencé defaat nag ay visite ña ko koy defal waaw waaye day xel mu dal mi nga xam ne kon moom la Karim Wade moomee nekkee ëpp na waaye audience bi nga xam ne nag maanaam moom la ñu gën a bàyyi xel daal mooy digganteem ak Fabouli Gaye Fabouli Gaye bu Kolda waaw Karim Wade ci boppam na ko carrément ne ko ngeen jox ma ko man nangu naa ko la may sàkku ca yéen daal Sénégal mooy ngeen bañ a nekk nag ay permanence wala ay militant bureau waaw waaw wàcc leen sur le terrain ñun daal fi mu nekk nii suñ bëgg-bëgg leen la rek mooy élection présidentielle 2017 bi la ñun waa PDS kon ñu gañewaat ko waaw Karim Wade ne Macky Sall daa war a delluwaat ci opposition bi 2017 man Karim waa ko wax lu jëm nag ci wàllum yoon ak lii yéen militants yi loolee bu mu leen jaaxal bu mu leen jaaxal parce que nag ñi nga xam ne kon ñoom la ca seen xam-xam bu mu sur le terrain jël di ngeen dem inscrire leen ci liste électorale yi dana bari yéen rek gi ne Karim Wade day engagement ak détermination ambition maanaam farloog njàmbarte gi nga ni kon moom la àndal démb laa lay wax ni daa mujj jaaxal sa kon ay militant waaw Karim Wade ne ñëpp xam nañu ne bi nga ni kon tëj nañ moo ko ci kaso la jaarul yoon waaye dootul yàgg dara danaa génn kon ci kaso bi man Karim Wade nag ci yéen ndaw yi yaakaar ngir élection présidentielle bii di ñëw élection présidentielle bii di ñëw ni lée parti socialiste day mi koy préparé ubbil le quotidien yéene kaay ndaw secrétariat exécutif bu Benno Bokk Yaakaar waaw Mor Ngom ak ñamu àndal tey naqarlu nanu defante gi nga xam ne kon moom la waa Benno Bokk Yaakaar nekke te bokk njaboot aaya bi mang satala Cruz maître maam Adama Gueye ci le populaire d'accordul kon benn yoon tey ak li président wax ci wàllum transhumance fu tooy ñu waaw maître maam Adama Gueye ne xam nga député boo démissionné si sa parti di dem kon ci beneen parti da ngay sa mandat député waaw a transhumance sax sàccub nguur la bénir la transhumance c'est un détournement de pouvoir waaw du suñu jikko daal ñun Sénégal moomuñu ko grand place de eh, Idrissa Seck day man nga ca tournéem yo ba la dee démb ci guddi ko leegsi ca Tambacounda waaw te wisité na tam Kédougou Idrissa Seck dem na ca Dar Salaam Idrissa Seck dem na ca Salémata Idrissa Seck dem a ca Dakati Idrissa Seck dem na ca Fongolimi Idrissa Seck dem na dem na ca Keñoto Idrissa Seck dem na ca Jaxaba Idrissa Seck Touba lay dee ji dee lay daanelee tribune yéen kay ne tekk ndomba tànk gi nga xam ne nag bett na ñëpp te Alioune Sall def ko ci kuréel gi nga xam ne nag moo njaboote kon élu la kooy waaw waaye naataango meeram yi day d'accorduñ benn yoon ci Alioune Sall li mu tekki ndomba tànkam la la wax Abdoulaye Baldé ne man sax njariñal association boobee laa xamatul lan la Alioune Ndoye maire Dakar Plateau nee na d'accorduñ ci démission Alioune Sall bi la la wax le populaire ne dëgg la ñoom ñaar ñoo nekk ca bureau ba waaye nee nañ d'accorduñ tey te d'accorduñ ëllëg ci Alioune Sall kon del wat nak ndomba tank ba rew mi quotidien ne gis nga aline Sall ak Mansour Faye waaw nañu yakal président de mardi d'Italie ci manam kon lañu dugg nak ci walu nguur gi bok ci njabotam yene ka gi ne maître Ousmane Ngom day momit ma ngay préparer candidature ngir élection présidentielle 2017 libération yéene kaa ngi ne coowal fausse quittance quittance yi baxul yi ci douane bi waaw musiba mbaba kuma la ñaari milliards la ilaha illallah ma ne la gorow mbey gay e amg bo fi sam gorom waaw daanu na de xalé ba daanu na de japp nañ ko de te moo ni Mbaye e day ak ko wolu wóolu xalé bi di ko defal kon yene waaw ndekete yoo ci ay quittance yu bon la ko ne gi doon yëngu marti taali xaalisu askan wi rek trésor di ko nga ca laa wax bokkoon ca réseau le quotidien ne kaa ne beneen réseau ngi nii daanu ay samba surabali yoo xam ne daal seen machine lañ yor machine ba daal xaalis lay liggéey ma ne la police ba teg na leen loxo ñeent ñoo xam ni kon am nañ njort gu ñaaw ca ñoom teg nañ leen loxo laas ne palewu Macky Sall ba présidence de la république bu dee am na lenn loo xam ni kon moo fa jafe dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg doom bu góor la fa crédit la crédit téléphone mooy ma ne la ay jege ñaale président yoratuñ seen ligne fi mu nekk nii la kay yeneen i numéro rek wa ilaa chargé ay carte crédit wala dugal séddoo e eh, jaay ma séddoo séddoo yekkal ma jaay ma séddoo wa ilaa daal ñu xaar ba promotion am jege ñaale Macky Sall yee daal di dugal ligne dañuy xaar ba promotion am rek ñu dugal ligne <laughs> alaaji man de waa pale ba bu ñu demee bay xaar promotion di dugal ay séddoo kii yekkal maa kii ak di dugg ligne ah! ñun de kon xanaa ñun nañ toog ci yónnee message rek ak di xaar ñu ñuy woo moo tax ma ne la alaaji alaaji man rappel moi bi laa koy baaxoo moom laay may ñoom élage ki buggaan gédda ni bu ko defee ñu gaaw woomu comme ñoom ñooy bossi ñoo yor xaalis ak ligne yi crédit yi jaajëf bu a baax ci la première TV 19 h na fi jaarat ci kàllaama nasaraan ak coach ma bàyyi leen léegi ngeen xéewalu seen émission seen xéewal lay doon ngeen ci ànd ak Fatima Diak Alima Ndion Fall xéewalu leen ak jàmm